samedi dimanche sur Sen TV. tey dañuy wax si bu njëkk bi mooy reflux gastro-œsophagien. ni ma leen waxoonoon rek ne woon naa leen euh, biiru doomu aadama juróom-ñeenti kër la bu mettee da ngay fon sa mbaax dañ koy bën dina def quelques minutes soog arrêté. géex bi soog a ñëw liquide bi yéeg bu yéegee nag bu léeg mu dem ba yéeg si kaw thorax bi ba yéeg fii da ngay dak mu nekk ndox bu wex ndox bu forox moo tax lu yéeg comme acide rek bu yàggee daf koy làkk. mooy waral a léeg nga naan ay engine la ama parfois te fekk boo reflux moo koy indi mu teg si dinay yëngal nit aussi en cas d'effort la nga def sport bu tar wala nga liggéey liggéey bu métti rek ba benn moment rek mu yëngu kon noonu la xàmmee le reflux gastro-œsophagien garab gi leen di tegtal nag lu yomba am lay doon question yi ni ñu leen doon ñaar kenn ki wàllu jàngoro Kajoor lay laaj muy hémorroïde bari na loolu nag mais hémorroïde ñoo xam ne c'est une maladie héréditaire dañ koy doon.